ziar ziaraat nga mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di wax tey aussi dañu déplacé wu ñëw ba fii ci face baaw ñëw open press Boy mar fils de Ibra Mbaye Taylor la tay la mardi 30 novembre 2021 mi ngi war bëre le samedi 4 novembre euh, samedi 4 décembre la war bëre 2021 à l'arène nationale ou Sadio Iba Mar Diop de toute évidence xam naa l'instant bi pare na puisque mi ngi ci euh, mi ngi ci open press bi Du waajal un combat crucial un combat capital pour la suite de sa carrière ñoo ngi fii ci open press bi lu fi mënti am tey dinañ la ko dinañ leen ko jox Abdoulaye Bante Boy Maar fils de Ibrahima Mbaye ci open press bi loolu jëlal Boy Maar jëlal loolu fils de Ibrahima Mbaye moom ngay am noonu e ca mbër waaw ngi noonu kokoy Boy Maar kokoy le jeune prodige de Fass Mbao le digne successeur de Ibrahima Mbaye moom ngay am noonu Boy Maar jëlal jëlal loolu a géwal bu mënee fees wàcc na le digne successeur de Ibra Mbaye moom ngay am noonu Boy Maar ci open press tey la mardi 30 novembre 2021 ñoo ngi fii ci Fass Mbao ñëw teewe ci open press bi mi ngi noonu aca Mamor Mamor mi ci rang yi Rëm la Baye Fall mi ci rang yi waaw waaw aca mbër jëlal fils de Samsam mi ngi ci Samsam mi ngi ci rang yi bébé Zo Lion Zo Lion numéro 2 wala bébé Zo mi ngi ci rang yi Ibulaay mi ngi ci rang yi Ibulaay mi ngi ci rang yi Daouda Sandwich Daouda Sandwich mi ngi waaw waaw lépp ci open press bi Boy Maar fils de Ibra Mbaye moo aaye tey di waajal un combat capital le samedi 4 décembre 2021 mi ngi doomu géwal bi mi ngi doomu Ibra Mbaye waaw loolu jëlal loolu di waajal combat mi ngi noonu combat bi yàggatul dara puisque samedi prochain la jëlal loolu ko koy Boy Maar fils de Sadio fils de ay jàmbar waaw ay jàmbar waaw ay jàmbar waaw waaw yaa ngi tëgg géwal yaa ngi tëgg waaw waaw jaajëf jaajëf loolu looloy groupe bi looloy groupe bi noonu waaw xëccal sama gaay aca sama gaay tey Fass Mbaw moo aaye Fass Mbaw moo xew la tey école de lutte les Tigres ñoom ñoo xew la tey école de lutte les Tigres bu Mbaye Gueye ñoom ñoo xew la tey open press Boy Maar fils de Ibrahima Mbaye mi ngi noonu waaw waaw jëlal loolu جلال لالو واو aca Karbala Papis Karbala dugg si na jëlal loolu aca mbër waaw waaw mi ngi enfilé gars yi jëlal Boy Maar mi ngi enfilé gars yi mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu takk na gars yi mi ngi noonu mi ngi na gaañ yi kookoy Boy Maar la mi ngi noonu Fass Mbaw représente loolu jëlal loolu ay jàmbar waaw waaw waaw waaw jaajëf jaajëf fils de Ibra jëlal loolu mi ngi noonu mi ngi noonu waaw waaw mi ngi bi ba mag Fils de Sadio la diggante mag Fils waaw waaw dafay wane ne waajal na combat bi ci côté yëpp ci plan yëpp waajal na bëre waajal na xeex waajal na tous aussi ambiance waajal na fecc bu baax mi ngi noonu mook fils de Sadio ci de boxe bi Boy Maar fils de Ibra Mbaye waaw waaw a bëre samedi bi war a bëre samedi bi samedi 4 décembre la war a bëre mi ngi noonu aca mbër waaw waaw waaw ba tey Fils de Sadio ak Boy Maar ndeysaan Reum la Baye Fall mi ngi nale Mame Mor doomu Fass doomu Sam Sam Fils de Sam Sam waaw waaw yaa ngi tëgg géwël yaa ngi tëgg Elaz Elaz Mbuub ak groupe am Elaz Mbuub moom ngeen seen noon ak tengaade bi waaw waaw moom ak groupe am koy matal Elaz a ngi noonu Elaz Mbuub moom koy seen noon ak groupe am ndeysaan ñoom ñoo ñëw assuré batterie bi tey ñoo féete woo sabar si ñoo féete woo ndënd yi jëlal ay càmbar ngi noonu mi ngi noonu mi noonu kokoy Boy kokoy fils de Ibra noonu waaw waaw ay mi ngi noonu le digne successeur de Ibrahima Mbaye moom ngay seen noonu ko koy Boy Maar Fass Mbaw représente école de l'île les Tigres Boy Sadio Boy Sadio am noonu Boy Sadio moom ngay seen noonu mi noonu ko koy Boy Sadio ko koy Boy loolu jëlal loolu Boy Sadio idi idi

mi ngi noonu jëlal loolu ci séance de boxe bi tey wane na waajal na combat ci plan yëpp wane na wane na ni waajal na combat waajal na ko physiquement waajal na ko mystiquement waajal na ko techniquement mais waajal na ko aussi sur le la bagarre mi noonu le seul de Ibrahima Mbaye Mambaye Amnon am noonu Boy l'un des protégés de Mbaye le jeune prodige l'enfant de Fasmau, un jeune phénomène pétri de talent Boymar, Maar fils qui doit livrer un combat crucial le samedi 4 novembre 2021 le, le samedi 4 décembre autant pour moi le samedi 4 décembre 2021 le voici le jeune phénomène. Le voici le jeune espoir. Le jeune espoir de Fasmao. Boymar, fils d'Ibrahim à la baguette. À l'œuvre, autant pour moi. Hein? mi ngi noonu jëlal lolu, jëlal njàbbi jëlal lolu, jëlal c'est le fils d'Ibrahim, Ibrahima Mbaye mi ngi noonu mi ngi noonu jëlal loolu ak la <laughs> ça c'est le digne successeur de Ibrahima Mbaye Boy Maar léegi nag dama bëgg mbër yi nga xamante ne ñoo fi nekk ñu defar affaire yi mu naagis waa Jean-Pierre dafa jógee sam ñëw gis naa fi rëm tamit benn phase ba jógee ñëw waaw ba tey de ba tey ñu ngi ci séance de bi Boy mar la ak euh, Fils de Sadio Boy Maar Fils de Sadio ba tey ñu ngi ci combat bi waaw waaw aha aha mi ngi sato waaw waaw jëlal loolu jëlal loolu Fass Mbaw moo xewle tey tey Fass Mbaw moo xewle Fass Mbaw moo xewle Fass Mbaw Fass Mbaw ñoo xewle tey waaw waaw Boy Maar moo xewle fas Mbao moo xewle ndeysaan Mam Mor doomu Fass mi ngi noonu taxaw ak tent bi rëm la Baye Fall moo taxaw ci wetam Reum mi ngi aligné ak Fils de Sam Sam Reum mi ngi aligné ak Fils de Sam Sam beneen mbër a noonu bu ñu war a bàyyi xel bu baax waaw waaw jëlal loolu Petit Tigre mi ngi noonu aligné Petit Tigre mi ngi noonu moom ngay seen noonu ak casquette bi Petit Tigre ngay seen noonu Ibou Laye ngi nale ak t-shirt bu rouge bi jëlal loolu waaw waaw jëlal loolu jëlal loolu jëlal loolu kokoy Boy Maar de Ibrahima Mbaye mi ngi noonu mi ngi noonu fas Mbaw représente école de lutte les Tigres waaw waaw tekki na gants yi tekki na gants yi tekki na gants yi day waajal tuus tekki na gants yi day waajal tuus ndeysaan jëlal loolu Fils de Sadio Fils de Sadio mi ngi noonu Fils de ngi noonu soxor la def booy bi dafa soxor jàpp gaay yi door daanu la fi nekkee mi ngi noonu kookoy Fils de Sadio bu Lansar mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu waaw waaw Elhadj Elhadj Mboup Elhadj Mboup waaw waaw waaw waaw Elhadj mi ngi noonu kookoy Elhadj Mboup ndeysaan kookoy Elhadj Mboup mooy géwal bi géwalu géwal bi jëlal loolu jëlal loolu ndeysaan ndeysaan waaw waaw jaajëf moom mooy tëgal Boy Maar kookoy El Hadj Mbuub kookoy El Hadj Mbuub mi ngi noonu waaw waaw Ibulaay mi ngi joxe ay consigne Ibulaay mi ngi noonu mi ngi joxe ay consigne waaw jaajëf waaw waaw jëlal loolu Boy Maar fils jëlal loolu mi ngi noonu le jeune produit des Fass Mbao un phénomène est né un nouveau phénomène le digne successeur de mi ngi noonu ngi noonu kokoy Boy Maar mi ngi noonu tuus waaw waaw mi jëlal loolu ay jàmbar jëlal loolu mi ngi noonu mi ngi noonu Boy Maar ngay am noonu Fils de Ibrahima moom ngay am noonu ci tuus bi ndeysaan jëlal loolu Boy Maar ci tuus bi Boy Maar ci tuus bi Fils de Ibrahima mi ngi noonu mi ngi noonu jëlal loolu jëlal loolu waaw waaw jëlal loolu Fass Mbaw représente ndeysaan Ibrahima Mbaye ngay seen noonu wala ma ne petit tigre petit tigre moom ngay seen noonu petit tigre ngay am noonu waaw waaw ndeysaan bébé so bébé so mi ngi noonu jiran yi boy maar fils de Ibrahima moom ngay am noonu mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi jëm ci Elaj mi ngi jëm ci Elaj Mbuub mi ngi jëm ci Elaj Mbuub mi ngi jëm ci Elaj géwal bi am na géwal waaw waaw bi dem na ci géwalam ndeysaan jëlal loolu jëlal loolu fii sa rëm la Baye Fall ci ginaaw rëm la Baye Fall mi ngi ne la aligné ci ginnaaw waaw doomu Sam Sam mi ngi aligné ci yi Ibou mi ngi aligné ci yi waaw ay càmbar waaw waaw jëlal loolu Kokoy Dia Kokoy Dia numéro 2 Modou Mbaye am noonu Dia numéro 2 Dia 2 moom ngay am noonu Dia 2 moom ngay am noonu Dia 2 Modou Mbaye moom ngay seen noonu dugg na ci rang yi mi ngi ci rang mi ngi noonu ay càmbar waaw waaw avec du punch waaw waaw xoolal loolu Dia numéro 2 Dia numéro noonu ci rang yi Bébé Soo Lion loolu jëlal loolu jëlal loolu waaw waaw noonu open press bi day open press bi day rëb tey waaw waaw ndeysaan ndeysaan yaay yaayam tiset bi mu sol moo ci nekk ndeysaan yaay ji génn àdduna yaayam lay rendre hommage ndeysaan ndeysaan jëlal loolu boy maar waaw waaw aha waaw jëlal loolu jëlal loolu jëlal loolu jëlal loolu tey waa ñoo ayee waa Fass Mbao ñoo ayee école de les Tigres ñoom ñoo xewle tey Boy Mara noonu Boy Maar a ngi noonu dem na ci élance boobu ndeysaan sexal na ko biyee na ko mi ngi noonu mi ngi noonu acca Boy Maar jëlal ay jàmbar ndeysaan waaw waaw mi ngi njuug mi ngi njuug Boy mi ngi njuug ndeysaan mi ngi aligné ak Daouda Daouda moo aligné ne le sol sol yu noir yi Dia 2 moo aligné li sol lu orange Petit Tigre moom ngay am noonu ci beneen wet gi waaw waaw Fass Mbaw mooy xewle tey ndeysaan jëlal Boy Maar jëlal jëlal l'héritier de Ibrahima Mbaye moom ngay am noonu le digne successeur de Mbaye Gueye Tigre de face, Kokoy Boymar. du di waajal un combat capital le samedi 4 décembre 2021 journée Jax production là, ma Nolou. Et Wafas ma Fass Mbao ñoo xewle waa Fass Mbao ñoo xewle tey jëlal loolu jëlal open press bi day waaw waaw kala mu ngay am noonu kalaamu le président de l'ASC moom mooy am noonu ndeysaan président ASC bi moom mooy am noonu mooy kalaamu fekk na léegi wane na boppam wane na boppam ndeysaan kalaamu ngay am noonu waaw gars yi ñëw nañu ne ndeysaan jëlal jëlal jëlal jëlal Mamor doomu Faas jëlal Mamor doomu Faas jëlal Mamor doomu Faas mi ngi noonu mi ngi noonu jëlal Mamor jëlal Mamor Mor ngay am noonu doomu Fass ngay am noonu lépp ci open press bi waaw waaw doomu Fass mi ngi noonu ay jàmbar kookoy Mame Mor doomu Fass ngay am noonu jëlal loolu ay jàmbar waaw waaw waaw waaw ndeysaan a càmbar waaw waaw aha waaw waaw waaw waaw waaw open press bi xumb na open press bi rëb na open press bi rëb na te demaguñu fenn rëb na te demaguñu fenn rëb na te demaguñu fenn waaw waaw jalal ibulaay jalal ibulaay jalal ibulaay mi ngi noonu Abdoulaye moo sol trait mi ngi noonu Dia numéro 2 Dia numéro 2 doomu Sam-Sam kalaamu Daouda Ibulaay mi ngi noonu ay càmbar waaw waaw Fass Mbaw mooy xewla tey Petit Tigre mi ngi ci ginnaaw Rëm la Baye Fall mi ngi noonu Bébé Zo mi ngi aligné ci rang yi Fils Karbala ñëpp taxaw Fils de Sadio waaw waaw jaajëf ndeysaan waaw looloo leer looloo leer Boy Maar moo xewle Boy Maar Fils de Ibra Mbaye moom moo xewle tey Boy Maar moo xewle Fils de Ibra Mbaye moom moo xewle Dia 2 Dia 2 Boy Maar ngi noonu complice lañu ndeysaan ay complice lañu Fass Mbaw la ñuy représenté ñoom ñëpp drapeau Fass moom la ñuy représenté fu ñu mënti dem waaw waaw waaw kalaamu kalaamu ngay am noonu kalaamu moom ngay am noonu ci micro bi kalaamu président ASC e bi moom moo téye maag bi noonu kalaamu moom moo téye maag noonu waaw mi ngi noonu fils de Samsam fils de Samsam mi ngi noonu fils de Samsam moom ngay am noonu ayca Boy Maar ayca fils de Ibra Mbaye waaw doomu sam-sam doomu sam-sam moom ngay am noonu doomu sam-sam moom ngay am noonu doomu sam-sam moom ngay am noonu waaw Zamzam. aja Kalamu Kalamu Kalamu dans ses œuvres mi noonu waaw waaw <laughs> jëlal doomu Zamzam Jali Ibrahima Dior la nekk pensionnaire de l'écurie de l'école de Jali Ibrahima Dior kookoy doomu Zamzam ndeysaan waaw waaw ay jàmbar ay jàmbar jaajëf loolu mat na waaw waaw waaw waaw ndeysaan aca rëm rëm la Baye Fall rëm la Baye Fall rëm la Baye mi ngi noonu jëlal loolu jaajëf rëm ay jambër waaw waaw waaw waaw jëlal loolu jëlal loolu Baye bi ngay am noonu jaajëf rëm ndeysaan wane na boppam wane na boppam participé na participé na wane na boppam ngay am noonu boy maar sosal na ko petit tigre am noonu petit tigre am noonu waaw waaw kookoy Petit Tigre jaajëf waaw waaw kookoy Petit Tigre ndeysaan waaw waaw Petit Tigre ngay am noonu noonu mi ngi noonu ba tey ci open press bi ba tey ci open press bi Ibou Laye ngay am noonu Ibou Laye ngay am noonu ak Rouge bi waaw waaw acca Daouda acca Daouda ngay seen noonu Daouda ngay am noonu acca